Voilà, voilà, voilà. nii la leen fekkee ñu nekk seen tàggatu gu metti ñoom ñii di ay ASC Bambey bu jigéen bi ki leen di tàggat di Mbayang di dikkaat na ci anam ba mu leen di tàggatee ak naka la ko Bambey gisee. Euh, yomb na yombul parce que population bi déjà accepté nañu gis ay jigéen yu football ñu ñuy laaj sax d'ailleurs comment faire pour pour ñëw bokk et donc ça c'est déjà bien une première football nekk na loo xam ne ñëpp ko bëgg. une première donc euh, nit ñi ñu ngi bokk ñu ngi seetaan si ñu ngi ñu jàpp. ñoom ñii li sax ñu ngi. seen ñetteelu joŋan. ñetteelu ndam. ñu ngi ci deuxième division ci championnat bi ñu ngi ci deuxième division. waaw ñu ngi ci ñu ngi ci phase aller yi donc euh, joué nañ ñetti match yàlla dimbali nañu suñ ñetti match bi dañ koo gagné mu des ñaari match ci ci ci phase aller. seen objectif mooy. suñu objectif mooy yéegal équipe bi en première division. comme am nañu tàmbale bu bu bu baax. am nañ ci yaakaar bu baax que nii bu ñu gënee góorgóorlu euh, mën nañ yegg fu ñu fu ñu fu ñu bëgg a yegg. anam ba ñuy liggéeyee métti na lool ndaxte amuñu terrain yoo xam ne nag dinañ ci mën a entraînement entraînement bu sax nit ñi dañu fay jaar di dem ak a dikk. waaw terrain bi moom comme ni ngeen ko gisee nit ñi dañuy jàll oto yi yëpp. Euh, gënoon na métti sax début bi mais léegi ñi ngi commencé di wax ak ñi nga xam ne ñoo fi jàll pour dévier leen ñi ngi accepté ndànk-ndànk am na ñuy nangu am na ñu dul nangu mais comme lu ñuy wax rek il faut ñu adapté wu parce que moo fi sës suñu terrain fii à Bambey pareegul loolu moo tax. seen bëgg-bëgg sax moom moo di équipe bile jóge ci biir Bambey looloo tax ñu ngay tàggu tànk ya ngir ñu mën a am relève bu baax. déjà projet bi si loolu la dinañ dinañ dem ba euh, majeure partie équipe bi fii la ñuy fii la ñuy ko loolu projet la bu bu jëm si kaw donc euh, il faut ñu. gën kaa togg de telle sorte que dinañ commencé si suuf à bas xale yi tàggat leen ba mu ñu mun a représenter équipe bi ci élite ASC Bambey nekk ci deuxième division bu footballu jigéen ñi moom day mu ngay woy di am ci ñetteelu marsam ñetteelu victoire ñoom ñi sax seen gët fañ ko teg moom moo di élite ba te di ñaan Bambey yëpp jàpp ci te doomu Bambey yëpp génn jàppale leen. mbir maa ngi noonu ñu àndoon nag équipe bu Bambey bu jigéen bi. dinañ dem seeti góor ñi fi ak i fan te xam ne ay fee Bambey rek moom moo ñor waa Bambey te lañ bëgg moom moo di. seen ay fee yëpp muy góor di jigéen di basket daal di yéeg ci élite ba. Bambey 24 dina ànd ak yéen ci yeneen jeetaay tàggat yaram fii ci Bambey.